lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a kat ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku gay ne jaay mooy sunu gaal te ju ñu tëggal ma bësi bëggee noonu lay ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg téléspectateurs yi ni tàmm seetaan ñu ngi leen di bégge bu baax a baax a baax am mbégte ak kontante ci jotaay yi nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi ci ànd ak yéen ci ay événement yu mag seen télévision la RTT TV di ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy les grands événements ñu leen ko di ànd yéen di doxantu euh, li ko sabab mooy boobu ba léegi ñu ngi doxantu di ànd yéen ci euh, événement bu mag bi nga xam ni les tailleurs de marché central ñu ngi ci jëm muy Modou Tabaski Modou Tabaski boo xamante ne nii ren ñu ngi toll ci troisième édition di ko def fële au manufacture des arts décoratifs ku gis fii ñu taxaw taxaw di résidence euh, Adama mu nekk barab boo xamante ni ni le euh, alhamdulilah ca Thiessois yi euh, war nañ ko découvrir mu nekk partenaire u les tailleurs ndax saa yu ñu amee séminaire dañuy ñëw ci résidence Adama saa yu ñu amee réunion bu am solo saa yu ñu amee ay gan yu ñëw war a dallu mu nekk endroit bu chic gis ngeen ko noonu euh, chambre yu civilisé euh, accueil bu rafet euh, mi ngi ci biir résidence Adama nekk fii ci quartier Thiali derrière collège Saint-Gap muy nekk barab boo xamante ni la am na solo bu baax a baax a baax a baax ñu ñu doxantu si woon fii ndax ñoom ay partenaire lañ ci ñi nga xam ni mooy défilé bi ndax gan ñi nga xam te ni ñoo war a ñëw ci défilé bi dañuy ñëw dal dallu si fii di résidence Adama muy barab boo xam te nii bëgg nañ xamlante leen ak moom ndax partenaire la boo xam te ne mi ànd ak les tailleurs ñu jëm ci mode tabaski bu am solo bi la ndax wax naa leen événement la boo xam ne événement bu am doole la événement bu am solo la Ceesuwaay euh, yi war nañu gën a booloo kenn ku ci nekk lii lii sa secteur ak fi nga nekk nga gën ko dëgëral ñu mën a ubbeeku gën a jàppante gën a booloo bu baax a baax a baax moo tax euh, vraiment ñu xamlante leen tey ak fii nga xam te ni moom mooy résidence Adama nekk barab boo xam ne ni macha allah euh, dal na endroit bi set na na ndax képp koo xam ni gis nga image yi nga xam te gis ngeen ko noonu ci suñu télévision macha allah mu nekk lu am solo ama am solo la day baax nag léeg yu mel nii ñu di ko euh, taxawee bu baax a baax a baax ñun ñi nga xam ni ñun ñoo nekk les porte de voix euh, barab yu làquti ñu koy génnee di woon Cees waay ni leen Cees am na lépp soxlatul yow mi nga xamante ne nag dëkk Thiès euh, ak li ko wër ngay jéggaani foo xamante ne nii man nga fa euh, nuite mën nga fa dallu mën nga fa jël temps mën nga euh, def fa say passage man nga fa organiser des réunions des séminaires mën na dal ay gan yu bëri bëri plus de cinquante personnes mën nañu ñëw dal fii et duñu am benn jafe-jafe te aussi lii seen particularité mooy am na service traiteur lépp loo xam ne de yaa ngi am seminaire wala nga am benn réunion bu mag boo ñëwee boo jokkoo ak résidence Adama dinañ la taxawu toggal la moom pause café am euh, déjeuner petit déjeuner defal la li nga xam ni mooy traiteur bi même bu fekkee danga soxla dîner euh, des buffets ñu dressé la ay table defal la ay jus de qualité yoo xam ni nii vraiment ñoom ñu ngi koy liggéey ak tamit équipe boo xam te ni équipe bu dynamique la équipe bu taxaw la jaaraama Thiès waaye wax dëgg yàlla day am solo cees bu amee bis yu mel nii ñu génn ko wane xar moom ba Thiès waaye xam ni wax dëgg yàlla soxlaatu ñuy jéggaani dara suñu partenaire noonu résidence Adama ngi noonu gën leen jàppanteeg moom képp koo xamante ni soxla nga seeni i contact numéro yaa ngi noonu di daw su suñu suuf écran boo leen contacter dinañ la jox ay information ci yar ak ci teggin ak ci dalal la ba nga xamante ni nii euh, lépp li sa soxla di di nga ko mën a matale kon événement baa ngi noonu ñu jëm ci défilé de mode muy med mode tabaski di am du 27 euh, mai au manufacture des arts décoratifs ñu ànd ci ak les partenaires tey suñu partenaire majeur bi nga xamante ni moom la ñu ci àndal nag nekk résidence Adama mi ngi noonu tey ñu doxantu si woon seet si leen présenté leen barab bi dinañu jotaay ak ñoom ci yeneen i euh, euh, événement ak yeneen i jotaay yu gën a yaatu parce que lu ñor Thiès rek moo ñu ñor euh, lu baax rek moom la ñu war a wone te Thiès am na loo xam te ni lu ni fàng la kenn du ko jeex kon mi ngi noonu ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen jotaay ak ci présentateur bi nga xamante mooy Seck Ndanaan ci caméra bi Doudou ci image yi vraiment jàppale ñu bu baax a baax a baax gis ngeen ko noonu RTT mi ngi noonu de des tailleurs ngi noonu résidence Adama ngi noonu Thiès ca kanam ñu gën a góorgóorluwaat gën a jàppande ba ci kanam incha allah.